mbokki téléspectateur mbokki internet yi nga xamante ni ah ñu seetaan sur la TMS TV yéen a ngi seetaan nag seen émission lii di lire commentaire actunet lay doon saa su ne fii ci la TMS TV mu nekk nag di liir internet yi seen commentaire yu ñuy jëmale ah ci vidéo yooyu ñuy posté sur la TMS TV mbokki internet yi laataa ñuy tàmbale nag li nga xamante ni moo ñu soxol maanaam liggéey ba daal di lire euh, titre yi nga xamante moom la ñu yooyu les vidéo dañuy daal di ziar jox wàccuwaay ki nga xamante ni mooy di xalif général di Alaaji Thierno Moule Sow nekk the king all the kings di kuli médecin traditionnel du monde jox ko wàccuwaayam bu mu mat sëkk waaye itam tënku néew bi ci groupe La TMS TV waaye itam duñu fàtte nag suñu compagnon de guerre yi comme nu ma koy waxee saa su ne mooy mbokki internet yi ñoom mi nga xamante ni ah duñu taay duñu ah, encouragé ci liggéey bi waaye itam di rafetlu suñu liggéey macha allah ah, gi big up mbokki internet yi tey daal dinañ sélectionné video bi nga xamante ni vidéo bu am solo la daal dinañ liir itam euh, commentaire ñi nga xamante ni mooy mbokki internet yooyu le yi nga xamante ni ñoom itam duñu sonn duñu taay ah di bàyyi ko seen i kàddu ci yooyu les vidéo euh, vidéo baa ngi porté ci Adia Thierno Moule Sow ci boobu les vidéo dañuy daal di euh, maanaam liir commentaire ya tout de lay daal di doon mbokki internet yi ay ci àndal ak man ah, ndax ma liiral leen seen ah, commentaire yooyu le mbokki internet yi am ah, tey comme ni ngeen ko gisee rek ci image yi ñoo ngi gis nag comme image vidéo boobu de vidéo boobule moo ngi porté ci Adja mu Moule Sow ci boobu boobule vidéo nag yéen a ngi gis dinañ daal di liir léegi Youssouf indil ma commentaire ya donc dinañ gis ay internautes yi nga xamante ni ñoom itam ah, ku ci mel ni walt Flave Flave moom itam daal dina yëkkati ah kaddu bu am solo kàddu bu ci mel ni macha allah mu Moule Sow mérite plus euh, plus euh, encore donc mu nekk li nga xamante ni itam hmm, ah, seeni kaddu la jëmale ko ci ah, kilifa kër gi mu nekk nag li nga xamante ni maanaam chaque jour. ah taalibe Thierno Moule Sow yi dañuy indal faral di indal ah ay ay ay adiya jëbbal ko ki nga xamante ni moo di Alaaji Thierno Moule Sow donc moom mii di walta moom itam ah, yëkkati na kàddu yi ci mel ni naan ah, il mérite plus que ça ndaxte nekkul sens c'est une mérite donc il mérite beaucoup ça moo tax ah, Alaaji Thierno Moule Sow saa su ne taalibe yi ñu ko mënta jox mënuñu koo fay ndaxte moo ngi nekk ci àdduna gi di xettali doomi aadama yi ci wàllum seen dundu bi ñuy dundu maanaam ci wàllum jinne atin yi ah ci wàllum dëmm nekk na li nga xamante ni moo nekk à l' donc ñu àddu ba tey mbokki internet yi daal di euh, dem Euh, même vidéo bi nga xamante ni moom lañ daal di sélectionné tey ñoo ngi gis nag ba tey ci image yéen a ngi gis à côté Alaaji Thierno Moule Sow yéen a ngi koy gis noonu moo ngi toog ci euh, buuru sais ba waaye itam moo ngi nekk li nga xamante ni itam ñoo ngi gis ñoom euh, Moustapha Fall ñoom doyen Aziz ak ñoom Gone ñoo ngi toog nag daal di def benn waxtaan benn commentaire jëmale ko ci adiya boobu bi ñu indal Alaaji Thierno Moule Sow te loolu nekk na lu am solo ci réew mi ndaxte ki nga xamante ni mën na laa xettali di la xettali itam euh, vraiment amoo payam ndax ndaxte ku fayuli doomi aadama du mun a euh, ku santul doomi adama autant pour moi du mun a sant yàlla suñu borom ba tax ni saa su ne ah taalibe Thierno Moule Sow waaye itam internet yi dañuy daal di sant gërëm ki nga xamante ni mooy bàyyi Serigne si waaye nag ñu daal di tàmbali liir euh, ci internet bi lee di Mariama Faye ci ay commentaire am yu mu daal di yëkkati mu ngi daal di naan billaahi maam Mariama ak jox la adiya lu war a euh, la ñu euh, war a jural ndaxte moo ñu jural ki nga xamante ni moo di Serigne bi donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la ah mbokk internet yi daal di faral di jox uh, addiya waajuru bu jigéen ci ki nga xamante ni moo di alaaji Thierno Moule Sow uh, mérite la ci moom ndaxte moo jur ki nga xamante ni moo di bàyyu Serigne si di alaaji Thierno Moule Sow loolu nekk na lu am solo waaye itam un ah, jour bile uh, ñu ngi amoon ci li nga xamante ni moo di benn taalibe bu nekk en États-Unis moo daal di débloqué ay millions daal di koy jëbbal Alaaji Thierno Moule Sow ci bile bis nag di ngeen gis ci vidéo waaye boo leen demee posté sur la TMS TV daal di cliqué euh, ci touche euh, la TMS TV di ngeen daal di gis ci vidéo yi euh, ci ay waxtaan yu am solo commentaire yu am solo yi nga xamante ni ñoom Moustapha Fall dañ koy def euh, ci bile bés waaye nag nekk na li nga xamante ni itam lu am solo la ñu. alors mbokki internet yi dañuy daal di addu demaat ci beneen internet ki ci euh, kii di Pape fay moom itam daal dina yëkkati kàddu yi am solo daal di naan macha allah tu es le meilleur. fii la lépp di leexe na làmp yi takk courant du moromu euh, sondel courant du fay ndox euh, mar naan maro na si euh, yàgg yàgg moom la fi yàlla wàccee dénk ko àdduna nañu nangu li yàlla def si suñu sëriñ bi moo moo gën si sëriñ yi macha allah mu nekk li nga xamante ni Ah, lu am solo la euh, ci jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di bàyyi sëriñ si di alaaji Thierno Moule Sow mbokki internet yi saa su ne ñoom itam dañu taay ah di commenter ah di bind ay wax yi nga xamante ni wax yu am solo la jëmale ko ci kilifa kër gi di alaaji Thierno Moule Sow ndaxte nee na nit ñi nangu ni yàlla mooy dogal na nit ñi nangu ni alaaji Thierno Moule Sow yàlla moo ko may kun may ko fayakun ba tax ni muy jëflanteeg. ak i jinne ak i dëmm ak jinne saatin yi nga xamante ni ñooy ruube dëkk bi du ruube euh, famille yi di ruube adduna gi donc nekk na li nga xamante ni nangu rek moo war jaam yi donc mu nekk lu am solo ñu addu Youssouf ñu addu demat ci beneen internaute ku ci mel ni Seynabou Thiam moom itam daal dina yëkkati kàddu yi am solo nañu déglu kaddu yi nga xamante ni daal di koy wax ci ki nga xamante ni ah moo di bàyyil sëriñ si nee na billaahi yaa baax si jinne yi jërëjëf Thierno Moule Sow woo euh, woo ñuy rek euh, ñu ñëw woo ñuy rek ñu ñëw donc mu nekk li nga xamante ni ah lu am solo la nee nañ nañ ko woo nañ leen woo rek incha allah dañ euh, teew incha allah donc nekk na li nga xamante ni ah mbokki internet yi lu am solo la Euh, mbokki internet yi ñoom itam duñu taay ah jëmale ci ay kaddu yi nga xamante ni kaddu yi am solo la jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di bàyyi sëriñ si ba tax ni mbokki internet ñu addu alors mbokki internet yi dañuy daal di toujours di addu demaat ci yeneen internet yu ci mel ni ah kii di euh, Diarra Diouf moom itam daal di na yëkkati ah kaddu yu am solo kaddu yi nga xamante ni dafay daal di jëmale ci ki nga xamante ni mooy bàyyi sëriñ si di Alaaji Thierno Moule to lu am solo lay daal di yëkkati yëkkati jëmale ko ci kilifa gi waaye ñu déglu ah teewlu li nga xamante ni moom la daal di wax nee na sama fans chaque jour maa ngi lay euh, suivre kontaan naa ci yow continue comme ça ñu bëri ñu ngi euh, ci yow donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la mbokki internet yi ah jëmale ko ci kilifa gi ah loolu nekk na li nga xamante ni ah, ndam la ci bépp mbindeef ndam la itam ci sénégalais yi africains yi partout dans le monde ñëpp dañu war a am fierté ci ki nga xamante ni moo di Baye Serigne Sy kon nag ñu àddu hmm, demaat ci beneen internaute Youssouf indal ma beneen internaute bile internaute di ay dara Aïdara ah, Miya moom itam daal dinay yëkkati kaddu yi am solo kaddu yi nga xamante ni moo ngi euh, mel ni xam naa ni am na lu ma àndal euh, ku ma faj euh, ngir yàlla tax rek laa bëgg donc mu nekk li nga xamante ni itam ah suggestion la waaye appel à à la donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la ci euh, ki nga xamante ni moo di bàyyi sëriñ si waaye itam euh, li nga xamante ni ah na euh, bile internet di Aïdara Mia donc nekk na li nga xamante ni lu am solo la c'est à retenir donc ñu àddu donc ñu dem ci euh, beneen internaute euh, ku ci mel ni Cissé Ahmed moom itam daal dina yëkkati kàddu yi am solo kàddu yi ci mel ni sëriñ bi bu la dara loo ba di la xuri yàlla na la yàlla sàmm sàmmal ma la euh, ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc mu nekk la li nga xamante ni lu am solo la bile internaute di Cissé Ahmed moom itam ah yëkkati na kàddu yi am solo kàddu yi nga xamante ni liiroon nañ ko sànq donc lu am importance la jëmale ko ci kilifa gi waaye jëmale ko ci àdduna wérangal képp ndaxte li nga xamante ni ah euh, yàlla may ko ñëpp yàlla daal di seppi ñëpp teggi ñëpp daal di jubbanti ci ki nga xamante ni moo di alaaji Thierno Moule Sow may ko kun fayakun ba tax ni muy mën a jëflanteeg mbindeef yi di mën a jëflanteeg ak doomi aadama yi ci njëkk ak teraanga waaye xettali leen ci wàllum li nga xamante ni moo di wàllum jinne ak i dëmm donc lu am importance la ba tax ni saa su ne war nañ ne di ñaalal ci ki nga xamante ni amoo di alaaji Thierno Moule Sow ndaxte ngàcce ngaalama ci mission bi nga xamante ni mission mission céleste bi nga xamante ni moom lay daal di def ci àdduna gi donc ñu addu donc ñu demaat ci internet bile di soxna maar moom itam daal dina yëkkati kàddu yi ci mel ni ngir yàlla wàññil fay bi ndax Sénégal ay baadoola la ñu ñoo fi nekk ëpp te ëpp fi man de sa taalibe la dama lay suivre chaque jour donc mu nekk li nga xamante ni en ah, suggestion la ah, jëmale ko ci kilifa gi ah, loolu nekk na li nga xamante ni c'est à retenir du ñàkk am ah ci àdduna gi ndaxte loo gis rek àdduna noonu la bàyyee ko tax ni mbokki internet yi addu hmm, daal di demaat ci beneen internaute kii di awa moom itam daal na yëkkati kàddu yi am solo kàddu yi ci mel ni the king of kings faj na sama doom zey ba mu naan mut waa Thierno ko faale yow lan donc mu nekk li nga xamante ni itam lu am solo la ah ci jëmale ko ci internautes yi ñoom itam daal dina yëkkati kàddu yi am solo kàddu yi ci mel nii bi nga xamante ni daal dinañ yëkkati kàddu yi am solo kàddu yi ci mel ni ma liir euh, donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la euh, ba tax ni internet bile daal na koy yëkkati daal di naan faj na euh, doomu zeyam donc mu nekk benn témoin oculaire témoin bi nga xamante ni dañ ko def ci alaaji Thierno Moule Sow ci wàllum fajum jinne ak fajum dëmm bu muy daal di def donc ñu àddu dem demaat ci beneen internet ku ci mel ni jaaxal seen moom itam daal dina yëkkati ah kaddu yi am solo kaddu yi ci mel ni Diourbel laa dëkk ah, dama bëgg si t-shirt Thierno Moule Sow yi donc mu nekk li nga xamante ni itam saa su ne mbokki internet yi na mu Moule Sow yi waaye taalibe yi nekk ci àdduna yi wérangal képp dañuy daal di soxla t-shirt yi nga xamante ni moom la ñuy faral di jaay en ah, fii ci clinique médicale bu Alaaji Caana Moule Sow waaye itam démb gisoon ngeen ah, ñu daal di aborder ci li nga xamante ni moo di cuuraay yooyu ak liquide vite fait bi ak cuuraay volcan bi donc nekk na li nga xamante ni lu am solo la waaye nag itam ah, duñu fàtte nag cité li nga xamante ni moo di bac jaaro magique boobu bi nga xamante ni nee nañ képp ku ko mënta takk ci adduna di nga daal di euh, réussir ci sa àdduna di nga nekk un milliardaire wala une milliardaire donc nekk na li nga xamante ni lu am solo la waaye dina daal di aar euh, ci li nga xamante ni moo di wàllum dëmm da wàllum jinne ak lépp li nga xamante ni wàllum chaatin jinne la dina la daal di euh, protéger contre tous ces esprits donc mu nekk lu am solo ñu addu ah mbay ñu addu Youssouf ñu demaat ci beneen intone ku ci mel ni Astou Fall Astou Fall daal dinay naan Thierno on voulait euh, que tu nous expliques quelque quelle est la différence entre un djinn et un rab donc mu nekk li nga xamante ni ay question la jëmale ko ci kilifa gi ndaxte nekk na li nga xamante ni ah moo yore saafara jinne yi saafara rab yi saafara dëmm yi waaye mooy ki nga xamante ni yàlla may na ko xam-xam bu muy mën a expliquer di mën a yee askan wi ci wàllum jinne ak yi dëmm ak lépp li nga xamante ni ah jinne shaatin la wala rab la moom euh, Thierno Moule Sow addina ah, la daal di yee ah, ci wàllum loola donc Euh, Alaaji Thierno Moule Sow dina am réponse bi ci à travers vidéo yi vidéo yi nga xamante ni à saa su dangeen da ngeen koy suivre sur la TMS TV di ngeen am réponse yooyu donc ñu àddu donc ñu demaat ci euh, beneen internaute euh, ku ci mel ni Mamadou Barry moom itam daal dina yëkkati ah kaddu yi am solo kaddu yi ci mel ni s'il vous plaît je le suis moi aussi vous avez une adresse en Europe donc mu nekk li nga xamante ni itam askan yi soxal na leen képp ku euh, bàyyi ko euh, fépp foo mënta nekk moo xam Europe la moo xam euh, Asie la moo xam fépp foo mënta nekk ci àdduna ah moo xam itam Sénégal la wala Afrique la donc Alaaji Thierno Moule Sow il est à la disposition ah mu mën a jëflanteeg doomi aadama yi ci wàllum jinne wàllum dëmm donc képp ku soxla Alaaji mu Moule Sow foog naa les adresses sont sur les video donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la ba tax ni askan wii dinañ daal di utiliser loolu daal di mën a jëflante ak kii di Alaaji Thierno Moule Sow waaye nag mu nekk li nga xamante ni soxal na euh, internet yi soxal na doomi aadama yi euh, ci li nga xamante ni moom la ko yàlla may euh, ci baatin bu ko yàlla may ba tax ni muy mën a xettali doomi aadama yi génne leen ci li nga xamante ni moo di njàqare yooyu donc ñu àddu ñu demaat ci euh, beneen internaute ku ci mel ni ah Fat euh, kinu euh, Gadiaga moom itam daal dina yëkkati kàddu yi ci mel ni salut tonton Ahmed c'est Sagi la fi de Awa Guissé la grande de ton ami Aliou Guissé léegi je suis une basketteuse je ne vis plus au Sénégal j'ai besoin de ton numéro personnel tonton s'il vous plaît donc mu nekk li nga xamante ni itam ah internautes yi wala doomi aadama yi soxla nañ ko saa su ne ci wàllu wàllum seen mbirum àdduna ci wàllum li nga xamante ni tolof tolof la ci ñoom donc mu nekk li nga xamante ni dañuy soxla alaaji Thierno Moule Sow wala soxla ku mel ni alaaji Thierno Moule Sow lu am solo la euh, ndaxte askan wi loolu soxal na leen torop torop torop ku ci mel ni alaaji Thierno Moule Sow moom mi nga xamante ni moo nekk le détecteur des esprits maléfiques moo nekk ki nga xamante ni ah, moo yore saafara jinne yi moo yore saafara dëmm yi waaye nekk na li nga xamante ni mooy xettali ah, bani aadama yi donc mbokki internet yi en ah, fii ñu daal di ndar képp ak seen émission lii di Actunet mu nekkoon nag mbégte ak contentement sa su di leen présentel seen émission lii di lire commentaire dañuy daal di euh, nuyoo ki nga xamante xamante ni moo di suñu caméraman bu xarale bi di yusuf moom mi nga xamante ni moo nekk ci ginnaaw caméra yi ndaxte kenn du ko mën a gis waaye nag ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ak équipe 40 221 waaye nag bokk internet yi ñu jox leen dig daje ci yeneen jotaay ci seen émission Actunet